naa tàggatoo gi léegi waaw di la mm-hmm. fa laan rek di jaajëf mbokk yi nga xam ne ñu ngi doon teewlu Safina FM 90.2 ak seen émission ñi dippeekoo ëttu ndaw ñi. Mm-hmm. am ak mbégte ak kontaante teewaat fii ànd ci ak yéen waxtaan ci lu ñu doon yi nga xamante ni. Mm-hmm. jotoon nañ ko waxtaanee tey muy lan métier visite yi nga xam maanaam garde corps yi nga xamante ñoo leen teg si bërëb bi ñu war a yore ñu war a assurer kaaraange bërëb ba wala kaaraange kër ga wala kaaraange borom kër ga. te ñoom sax seen wàllum bopp amuñu kaaraange bu war war a tax ñu assurer kaaraange bërëb ba loolu nañ ko xoolaat bu baax xoolal nga xamante ni ñi ñu fay teg ngir ñu ngir ñu assurer seen kaaraange jox leen matukaay yu war mesures yu moyens nga xamante ni war na mën a tax ñoom seen kaaraange bopp ñu assurer ko ak yow mi tamit tëdd sa kër ñuy ngay tëdd sa lal bu nooy ñu assurer sa kaaraange ak bi ni nga jox leen matukaay yu war moom euh, loo xamante ni ak ak yelleef nga wàccoo ko ak ñoom mooy sa mooy ndax lan àq dafa sew te nit ku mm. ne ñaa yàlla boo nekk ak nit dara bañ a dox seen diggante bi nga xam ne mooy mm. àq doomu aadama mm. lépp lu ñu ci jotoon waxtaan tamit mooy ñaareelu ponk bi mooy lan secteur transport mu doxee ak nga xamante ñii yokk nañ paas yi ñii yokkuñu lépp lu ma wax rek nañ ko woo ñu waxtaane ki lépp loo xam ne war na ñu waxtaane ko teg ko ci yoon ndax secteur transport bi du pro commencé wul ci nguuru Macky kese mais bu ñëwee ba yegg si fii tam mu ñëwaat nekkaat beneen point bu ñu soulevé waat si nguuru Macky yoon la lépp loo xamante nguur gi yëkkatuñu ci ñu dem si ba mu mat sëkk lépp lu ci war ñu def ko mm-hmm. ngir man su ma yeewoo da ngay jël mm-hmm. bi ngay jël mm-hmm. yóbbul ba fi nga yegg tali bi ngay mucc ayib paas bi tamit mu nekk paas boo xamante ni yamoon na ak sa poos mm-hmm. ndax dëkk bi si ñëpp la métti bul xool si yow mi kese yor sa oto di jënd sa essence mm-hmm. kii tamit client bi moo tax nga teg sa oto si kaw tali bi ngalawaay moom tamit xoolal poosam mm-hmm. fu mu toll en tout cas di leen di jaajëfal mbokk yi bu baax si teewlu gi naan rek xa la woon rek ñu waxtaan ndax waxtaan moom sottante xalaat la uh-huh. di baalu jégalu bu baax fekkee wax nañ fi wax joo xamante ni tamit dëng na lo du uh, du ñu ngi bu baax di la jox nga wëyal ajaratu uh, bannaka